merci beaucoup euh, il est beaucoup question d'un autre Sénégal nga euh, ne un autre Sénégal est possible la République maintenant euh, lan moo nëbbatu ci ginnaawu euh, slogan boobu ñun on est indépendant depuis 1960 ñu ngi bâtir une république ñu ngi bâtir une démocratie ma foogoon ne dañoo war a nekk euh, ci renforcement euh, raffermissement vulgarisation correction euh, mu mel ne yow da ngay proposer une rupture et la rupture elle est brutale. tout à fait li tax rupture bi brutale li ngay wax dëgg la parce que li may faral di wax toujours mooy un autre Sénégal est possible et heureusement qu'un autre Sénégal est possible parce que Sénégal bi ñu gis tey mooy Sénégal boo xam ne. bés bu nekk dina am mille sénégalais yu daw génn géej gi Afrique yaatu na lool euh, Atlantique am na vingt trois pays nga jël Méditerranée moo am lu mat douze pays yooyu yëpp di ay pays africain amul benn pays si Afrique bu am phénomène mbëkk barzax wala barzak bi nga xam ne moom la ñuy gis rax si dolli dëkk la boo xam ne am na pétrole am na gaz donc nit ñi dañu waroon a toog yaakaar. wóolu nit ñi leen jiite tey situation bi mi ngi wane ne du loolu moo am li am dëgg mooy loolu li am tamit mooy xale yi fanaan si mbedd mi yaa ngi leen di gis li am mooy ay kër yu tas amul benn famille boo xam ne boo demee si banlieue bi doo gis li may wax nii li yàq mbedd mi yëpp mu ngi commencé si biir kër yi boo demee nag si prison yi comme man nga xam ne j'ai fait toutes les prisons de toutes les régions du Sénégal amul benn bu ma bàyyi et je pense que je suis le seul homme politique bu dem xooli la fa gis maa ngi koy xool depuis ay at amul prison mais Kédougou may naa leen extincteur d'air euh, cent mètres mooy may leen ay yére ay dàll conditions yi ñuy jëlee xale yi amul prison bu ma duggul mais boo gisee li am prison mais nga xam ne Sénégal c'est pas 60 ans de démocratie c'est pas 60 ans de paix et ma gën a dem pour sori parce que ñun suñuy kilifa dañu waxoon ne dëkk bi dina booloo te tey Sénégal mosul diviser autant que ni mu nekk tey lu ñu def ba dëkk bi mel ni luy tas lu ñu def ba dëkk bi ku nekk jàkkaarlook sa morom lu ñu def ba suñu démocratie au lieu d'être une démocratie de confiance est devenue une démocratie non seulement de méfiance mais de défiance ba nga xam ne événement bu nekk histoire lay indi rawatina élection yi ñu jëm ak parrainage yi ak conditions yi nga xam ne dinañ ci ñëwaat nga xam ne am na loo xam ne yàqu na am na loo xam ne mu ngi yàqu société bi mais société bi nag bu ñu yaakaaree ne ay chef de chantier ñoo koy defar et que il suffit de tabax ay route ak ay pont pour que dëkk bi avancer c'est xamuñu liy yàqu li ëpp solo suñu dëkk li ëpp solo si li ñu am mi ngi yàq mooy jàmm ji déggoo gi bennoo bi et loolu yépp lan moo tax ñu tas ko moo tax ma yaakaar ne tey Sénégal bi ñu bëgg lépp la soof Sénégal bi ñuy vivre tey yaakaar naa ne même ñiy diriger Sénégal war na ñoo xam ne heureusement que notre Sénégal yi possible parce que Sénégal bi ñu nekk fii ay bombe à retardement la sur le plan démographique sur l'urbanisation chômage sur le désordre public sur ñàkk euh, discipline bi ku nekk yaa ngi jooytu fi nga nekk ak tax moo tax ma yaakaar ne du sax gën a waaxu Olof Ndiaye dafa ne waaxu baax na loolu wante xam fi nga jëm moo gën aujourd'hui ñu ngi waaxu ñu ngi accélérer cadence mais c'est pas le problème on a besoin d'un rebroussement de changer complètement de direction et comme ni nga ko waxee brutalement on a besoin sur le plan extérieur de rompre la continuité néocoloniale bi ñu nekk nga xam ne Sénégal xamul ndax moom moom ay décisions xamul ndax moom moom ay biens xamul ndax moom moom ay ressources on a besoin aussi de refaire les institutions parce que relation yi ñu am ak les terroirs c'est c'est les mêmes depuis 1960 et c'est pas étonnant que boo duggee biir Fouta wala nga duggee biir Casamance tu retrouves la même chose depuis ans loolu yëpp la a remettre en question rawatina nag affaire populisme ak affaire politique depuis 60 ans dans notre pays la politique est confisquée par des hommes politiques par des partis politiques et citoyen bu mel ni yow bu mel ni man nga xam ne bokkuñu woon parti politique amuñu aucune façon d'exercer la démocratie amuñu aucune façon de contrôler ce qui nous dirige on n'a aucune façon de discuter de nos choix fondamentaux de développement loolu lay remettre en question dans ma façon de voir et dama bëgg Sénégalais yi xam ne incha allahu rabi si je suis élu tout changera dans ce pays parce qu'il est temps de tout changer